suukar koor laa seen waa kër suukar koor tegaat si ku nekk day jox ku muy génnal suukar koor xanaa sa yaay sama goro eh, sama yaay sama yaay dëgg la sa goro waaye léegi dinaa dem ci boutique jënd kilo suukar jox la nga jox sa ah, yaay ah déggoo li ma lay wax suukar koor laa sax lool damay jëndal sa yaay tisi jëndal ko tàndaar ma ay bagage yi yëpp laay jënd anka ah, mata waa sat yow yow man man man man dama kamul yow yow lii maa jàmm na yow chaque jour laaj laaj laaj laaj te man sax man takk gumal di la jox suukar xam naa eh, maa dëggante say ràq ñu ngi may kéeg konto man suma yaay man jaruk mooy fii ba daara jolo laajte boobu du ma ko dundee dëkk bii la wax déedéet man suma yaay jaruk mu ngi fi bu daara jolof léegi man naa jënd euh, benn kilo suukar jox la bu munul ñàkk bu munul ñàkk sama diggante na fi yem waaye léegi man sama yaay garaaw léegi ngir yàlla naa jox sa yaay eh, gàcce boobu duma ko fanaanoo gàcce boobu sa yaay danga may ma jox ko suukaru koor waaye léegi naa jox naa jox ku liibar liibar fan munuma ko xam nga laa la wax li jëntal ma wax nga jox ma ko waaye yow léegi lan nga bëgg man loolu laa xam lan nga bëgg xanaa bëggoo ma laa bëgg ba rus fu mu nekk ni dama am gàcce sa pour di la kool waaye la nga bëgg maa ko def xeeb sama bopp dem di dugg sa ay paa yi nga xam ne mënul ñu ma dara. ah mënul loolu naa laa dara de barki yàlla. ah li ma la waxee def ko li ma yoroon yëpp yow yaa ko jël billaahi wallaahi taalaay. xam nga man bugg bugg ma ngay mer léegi dinaa jël ku nekk liibar ma jox moo jaay. taluma liibar rek ah, may jox ma dem jox ah jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf. maaleykum Mbada. balaa ngay wax doo nuyoo te lii laay wax sa ñàkk yar. balaa ngay wax doo nuyoo. maa ngi jégalu na ko waa. sant yàlla alhamdulilah Maodo. na ko koor gi jàmm tan Maodo. mais naka ndoxaan nga yaa ngi ci kawam. yaayam yaru ko baayam yaru ko yow nan ngay fekk ay kilifa di wax. kon ki laa wax waxuma yow. ki man lay waxal sa morom bàyyi la du sa morom. kilifa dina taxaw ci diggu weeru koor doxaanante. yow man maa la wax dama doka nan fi gis ku doka. ah de fela de Malick Kumba yi dafa doon doka nii dama koy dégg de maa ngi koy soog a kii. booy taxaw rek lee. man dégg naa nga ko daan jox mu sukuru koor ak. lu sa yoon eh sama mor sa morom nday laa la wax bu may wax ak kii sa yoon newu ci. waaw yaay doxaane wu ci mbedd yi comme ni ñu lay doxaane toppul góor rek ko nga ah. sa yaay rek man maa kamal nag sa yaay. bismillahi rahmaani foofu moom noppil. maa loolu jiitu sa judd bukk sa wax. bul wax bul wax. ay kilifa nga ne war a fulla fayda. maaleykum man maa dul di kaat dagg sant ak yow ba nga may dóor ma dóoree fi ba léegi boo xoolee fat dootuma fàtt sumu sumu yet bi. a si ah, yet bi. ma ne nga dem sa yoon. fulla fayda bagaade ak nit ñi war ne fii doxaanante yaa fekk nga takk jaar yaa kumba ad laa bëgg am mun nga dem wala wala munoo dem waaye lan léegi su ma demul léegi lay dóor ba nga bugg dee fekk ma demee ma dem naa ñàkk fay ñàkk ma wax mun ngaa dem wala munoo dem boo jaaru ni billaay dem eh, tey ngaa jàll mun ngaa jàll wala munoo jàll parce que yow boo teewoon si ba tey boo teewoon si du ma jàll li nga yëg ba tax may jàll waaye kon du ma jàll man maa ko dul teg nag ndax kam naa ko yow doo góor yàlla bu baax yow doo góor yàlla bu la nekkee naa doon jigéen yàlla waaye comme dingi dem saa ñàkk la jigéen dara fay naan jox Malick mun nga dem wala munoo de Malick ab mbiim ya ñàkk fay di bugg de yàlla sa bu saf bi bu ma dalee bu ma jooyee fii ala bu ma fo bu ma sama jooyee Malick mun nga dem wala munoo dem mën naa dem kay dugal fii góor jigéen mi nga doon xam naa lépp doom raa walla kali bi moo ñàkk yar waay koola fu mu nekk sa mère loolu ko ma bàyyil ma dem fi si boutique Alsan ma am lu mu lijjanti yow yow ngoon déggal kalaatuma ko billaay man man lu yàlla bind yaa ma gën